kon lu le 13, le 12, Ousmane Sonko tas assemblée nationale du Sénégal merci Ousmane Sonko merci Diomaye les profiteurs mboti demi, Abdoulaye Wilane la gis ne ans 30 ans mi ngi assemblée nationale milliardaire mais les, Aminata Abdoulaye Daouda Diallo Abdou Baro Dolli ah, ah, Ahmed Aydara Thierno Alassane Sall euh, Mamadou Lamine Diallo Tekki Maam euh, Diarra Fam ah nu mu tuddati euh, Pape Djibril Fall Pape Diop Ami Ndiaye Ñibbi am Abdou Mbow nu mu tuddati Koura ah, Macky nu mu tuddati l'autre Farba Ngom et cetera cetera et cetera Barthélemy Diaz Ahmed Aïdara abal leen ñu suñu assemblée nationale ngir yàlla alhamdulilahi rabbil alamin Ousmane Sonko doo nit Jomaay Fay doo nit ndax saguru nit yi yàgg naan teretu Sénégal dërëm waratuñ ko laal ci Sénégal Ousmane Sonko ni mu seddalee sama xol bi sax xamu leen ko barki rasulaay birimel talatuma Jésus Christa birimel talatuma Jésus Christa talatuma Muhammad xam nga la laatal les charognards comme ni nga ko waxee lekkatu mbedd yi dëmm xaraam yi du ñu doyal terrain Sénégal yëpp député yi sàcc nañ ko ay waay dootuñu déggati euh, euh, honorable maître euh, kii nu mu traité honorable Ahmed Aïdara dootuñu ko dégg balaa may dee ñu toog ci émission am nan ko honorable honorable kenn dootu la wax honorable wala bu ñu la ko waxee dañ la koy wax nii rek ndeysaan baara dolli dootul dégg honorable billahi Ousmane Sonko nu mu seddalee sama xol bi sax xamu leen ko barke Rasoul laay xamu leen ko man dama yàgg wax ne assemblée bi dañ ko war a tas waaw dama ko yàgg wax assemblée bi dañ ko war a tas tasu leen ko ñëpp noppi nekk te Ousmane Sonko boobu mu ngi préparé li muy préparé fi mu nekk nii dañoo jommi fu mu nekk nii dañoo waaru démb laa gis Abdoulaye wilaan muy kaas Abdoulaye Wilane ñoom député bi da leen neex. essence yi ñu leen doon jox xaalis bi ñu leen doon jox sàccu xaraam yi pendant ce temps minuwaal sénégalais yi amuñu sax lu ñu lekk di jaay socc di jaay sump di jaay ndox marché HLM 5 laa dem euh, sama yoon bi passé juin rek avril ba juin maa ngi woon Sénégal mais da ngay yërëm xale yi ambulement yi boo jëndee ci ñoom sax benn jean 5000 francs wala tubéy blouson bi ma fanaanoo duñ ko sax gëme 2500 3000 duñ ko sax gëme yéen ngeen yore ay milliards ba pare di cumuler ay poste ay dara député maire député maire bu soobee yalla député bi day day deñ le 12. maire bi dinañ ko nangu Barthélémy Dias teere nga dé teere nga dé da nga yaakaar dañ la bàyyi nga nek fi dox ay bilan mi parcours ak di dem ci ay ay ay ay ay almer almer yoy ngay dem de bu yóbbu nga préparer sa bammel ba Barthélémy Dias sa bammel politique dañ lay suul Ousmane Sonko nak na def très attention parce que guerre la dé gaay dañ koy jema ray dañ koy jéem a rey dinañ ko jéem a rey Ousmane Sonko na bàyyi di dem ci ay affaire Palestine na bàyyi di exposé boppam parce que système bi la Ousmane Sonko yëngal bu ñuy wax système mooy conseil économique et social politicien xaraam yi ñu fa casé ñu mel ni ay fou fou malade waxoon naa leen dina génn waxuma leen fou malade léegi ngeen gis mu génn démb sama laaj di jéem a expliqué nekkati ba may wax fokk na boobu génn na ba pare dem na Seneweb Seneweb nga xam ne surtout xaraam boobu Ousmane Sonko rek la ñu bañ. Ousmane Sonko rek lañ bañ seen titre bon yi seen titre yu bon waxoon naa leen Fou Malade newoon naa leen dina gën di expliquer di wax waaye xam naa xam naa foofu lay nekk non salaire bi sax laalaguma ko dama ko bàyyi woon foofu Fou Malade tu es exposé bala Macky Sall nommé da nga waroon démissionné nga ne bëgguma bëgguma waaye dugal tànk génn tànk kilifa rek moo nekk yaana maar moo tax kilifa moom la ñu jël jox ko euh, grand théâtre même Thiat dafa demoon ba ci biir mu daw res Sané ak kilifa ñoo nekkoon Y'en a marre ñi ci des ñëpp ay Simon ñëpp dañoo daw res tey Fou malaat ñàkk jomb ñàkk jom génn di am lu muy expliqué déglu ma ko sax déglu xam naa dafay nekk di wax wéy wéy tas ko moom c'est normal man de Macky la moom ma nommé man laajuma Macky Sall nommé la nit ki bu ñu la nommé te bëggoo ñu nommé la da ngay naan soxlawu ma da nga waroon def démissionné mais nga toog encaissé sa salaire trois mois léegi yàqal nga sa bopp ba ilaa yow mi di yow mii doon ne sama xol masalikul jinan am masalikul jinaan amoon naa ay photo li li sëñ Touba bind parfait wul lepp lu mu bind lépp a baax loolu da la wax c'est pas parfait sëriñ fi nek ngeen beug nit ñi continuer nekk ay lapato di len jaamu du tok ci souf seigne bass li seigne Abdou xa euh, ma conclure rek mais ma conclure parce que dama wara entraînement aussi mais si je bi da ñom li ñu wara comprendre moy Ousmane Sonko bu mu cédé à la pression ba dak Cheikh Omar Diagne waaw Cheikh Omar Diagne dal bugguñu ku ko dàq bugguñu ku ko def dara mi ngi naan di jooy dégg naa sëñ Modou sëñ Modou Mbacké di wax ana taalibe yi ana Mbacké Mbacké yi lu tax ñëwu leen parce que Mbacké Mbacké yi du ñu ñàkk fayda di ñëw seen affaire politique yooyu duñ ko def parce que yow PDS nga moo tax benn Mbacké Mbacké ñëwul comprendre nga jël say taalibe ñu gis fa ay euh, Abdoulaye Mbaye peex paa yoo nga xam ne boo leen joxee cent mille francs deux cent mille ñu ñëw ñooñu la fa invité ñu nekk fi di wax sëñ Touba lii sëñ Touba laa sëñ Touba problème bëgguñu ñu teg pression bëgg ñu baraj barajee yaakaar ne ñoom du ñëw tiit parce que xam nañ ne Ousmane Sonko du ñëw di def ko Macky Sall di yëkkate ay milliards di leen jox dañoo ragal dañoo yaakaar ne Ousmane Sonko salafiste la bu ñëwee day da leen di xeex day wàññi seen doole te Ousmane Sonko moom li ko soxal mooy développer réew mi Ousmane Sonko jullit la Ousmane Sonko dafa gëm islam xam nga Ousmane Sonko dafa gëm islam ñëwul pour yàqal leen waaye. li ngeen war a xam mooy Ousmane Sonko li ngeen di def la gën a bañ Diomaye li ngeen di def la gën a bañ mooy ku koy jéem a teg pression Ousmane Sonko il ne set jamais aux menaces APR looloo leen daaneel. di wax ne dañuy def motion de censure gis nga motion de censure moo leen indil tey Ousmane Sonko ne ah comme da di jaay réew xaaral ma ñëw tas assemblée xaaral ma tas conseil économique social xaaral ma tas HCCT léegi aussi yemuma fa. ku fi sàcc même bu dee cent mille francs sax dinañ la topp ñëpp tiit mu ne tëj naa frontières yi Farba Ngom doo génn. kenn du génn nga toog dégg Malick Ndour di wax man sax awma passeport di tiit ñoom ñëpp ci kasso bi lañ jëm dañoo tiit moo tax nag Ousmane Sonko ne def très attention parce que gars yi attan nañ ko rey ku mel ne jambal Diagne boobu ñu surveille ko surveille ko trop ñooñu attan nañ ñu rey Sonko pour déstabiliser réew mi Sonko bu mu naagu nag Ousmane Sonko bu mu naagu de na renforcer sécurité am parce que tamit nit ki du toog am ay euh, euh, euh, ay milliards am sàcc ay milliards.

Ousmane Sonko ndaru loon sax wax dafa ndaroon bàyyi ba le 12 rek mu ñëw annoncé ko léegi nag comme gars yi xam nañ fu nga jëm Ousmane Sonko gars yi nag dañuy jug xeex la te gars yi xam nañ ne mënuñ la xeex ak population bi parce que population bi àndul ak ñoom kon la ñuy def ut seen i ñu dóor la bal nga dee dëkk bi jaxasoo ñoom ñu daw génn réew wala ñoom ñu jéem a def leneen kon Ousmane Sonko il faut mu def très attention moom Diomaye na renforcer sécurité bi mi Mister Shake ku ma xam-xam ne man damay xalaat lu ñaaw rek laay xalaat du ma xalaat lu rafet mukk parce que dama xam ay doomeeraam lañ ko seqal waaye fi mu nekk tiit nañu ndax Abdou Mbow mi ngi naan man de ku sàcc sama yoon nekku ci Abdou Mbow mi ngi koy wax bu ko leeral ne dafa sàcc moom nee na yoonam nekku ci mi ngi koy wax euh, RFM xaw ma jëla ko doon wax Babacar Fall waaw kon nag murid yi bu leen ñu jéem a teg pression bu leen ñu jéem a baraj barajee baraj barajee li ngeen war a comprendre mooy mouridisme kenn mënu ko dindi Sénégal waaye nag nit ñi dañuy yeewu par force nit ñi dinañ yeewu de li daan am mom dina commencé wàññeeku ndànk ndank murit yi seen doole day wàññeeku ndànk ndank yéen ko tay parce que Macky Sall limu la doon defal Sonko du len ko defal motax Cheikh Omar Diagne bamu mu ngeen bëgg mu jël ay nit yo xamné ne dañoo jógee ci ay nar nar yo xamné ci magal gi nga bëgg mu yobul len King fat, mu ne du ko def loolu ngeen ko méré loolu rek ngeen ko méré du ko def du jël xaalis bi di di ko di ko yobbu ay Touba légui nak ngeen bëgg li ñi def ni pour benen nit bañ kon gars yi ma conclure Pascal Buur ñi gars yi bàyyi la maa ngi jéglu projet di mooy loolu sama connexion du baax fii ka euh, wala gannaaw su dimanche connexion bi dina gën a baaxaat bu soobee yàlla ñu génn ci bi sax gën a def analise mais en tout ñu ngi sant yàlla ñu ngi gëm ko like leen partage leen ku ku abonné wul abonné leen beneen maa ngi jéglu ci connexion bi maa ngi def effort au moins pour pour euh, pour def